fésal sun mbégte ci teew ci jataay bu mel nii ndax bépp jabtaayu xam-xam jóg dem ca euh, mbégte lay doon ci ñun ndax euh, gisuñu lu ëpp solo ci ñun euh, ci xam-xam waaye mbégte mi day gën a tee màgg bu dee xam-xam la waaye di alxuraanul karim boo déggee présentation bi di nga xam ni du ab sëñ daara moo ñëw di wax ak sëñ daara euh, man inspecteur ci làkku tubaab la ma yàlla def euh, yàlla def ni bu dee ci formation sociologue laa de formation sociologie laa jàng euh, waaye nag ci yëngu ak bëgg moo ma jaxaseeg daara ak bëgg ba ñu bari sax ràññee ma ci ba tey sax badge bi ñu ma jox te ma bég ci lool ñu bind ci euh, Mouhamadou Ngom maître coranique <laughs> loolu kon di di di di di di di sant yàlla gu mat sëkk ndax sëñ Jiili Mbàkke bu yàggu rek dañuy waxtaan mu ne ma yow daara dina defar lu ne comme daara def na ma sëñ daara lool defe naa <laughs> mu kàddu googu kàddu googu euh, xëy na ki ko def njuumte la waaye njuumte muñ bëgg la ñun ndax buñ sañoon euh, yàlla boole ñu ci sëñ daara yi ñu war a aborder thème buñ jàpp ni bu am solo la muy daara ak droit ndax lépp lu nit di yëngu ak lu mu mënti doon dafa war a am ak nose gu ca jiitu fi ñu tàmbalee mooy sujet bu ñu koy traité li jiitu mooy ñu leeral ñaari baat yi lan mooy droit ak lan mooy daara lan mooy daara duma ci xóot ndax ñi ma jàkkaar lool ñoo ma gën a xam lan mooy daara euh, waaye ñi ngeen ko séqal te ñoom ñuy définir droit ba xëy na ñoom seeni déggin ci daara mat naa ba mat naa leeral bu dee droit ci nu simple rek mooy aw yoon aw tërërin wu ñu dëppoo yaxal ko tasaare ko ba kenn waru koo umpale parce que dañuy wax ni nul n'est censé ignorer la mbir mu nekk boo cay soobu la ca yoon wax danga ko koo war a xam dog caa sóobu mbaa boo ca sóoboot war ngaa xëntewoo xam ko ndax bu jafe-jafe amee xawma ko woon du la ca musal kon droit mooy règle ak charte yiñ tëral ni mbir mii ci lii lay dox loolu mooy droit ci lépp bu dee ci réew mi dafa am droit biir réew ak droit international droit dañ ko def li ñuy wax hiérarchie dañoo tiimante dañoo ëppante daraja droit yiñ dëppook sart yi nga xamante ni sart yu réew yi bokk la nga xamante ni Sénégal daa dem signé ñu tëral ay charte mu signé ko yooyu ñoo kawee yeneen luwaay yi ci des yépp ndax da ko bokk ak ay nawle réewam bokk na ci bi leen ci gën a intéressé mooy convention des droits de l'enfant boobu 1989 lañ ko def état du Sénégal da ko signé te état du Sénégal yu ci bëri dina am état yoo xamante sax bu ñuy signé dañuy signé avec réserve ni signé naa lii ak lii waaye yenn tomb yi moom mais yu ci bëri da koy signé intégralement sans réserve. 1989. mooy euh, convention des droits de l'enfant hmm. boobu mooy mm, ci traité yi nga xamante ne ak accord yi nga xamante ne ci droit internationale bi gën a intéressé daara boobu la hmm. am na beneen bu ñuy wax la charte africaine la chart africaine boobu tamit Sénégal daf ci bokk hmm. muy wax ci protection de l'enfant xam nga sëñ Cheikh bi muy wax léegi ci psychologie muy ilmu nafs wax na ni xale bi dafa war a am dalu xel ci fi ne loolu nag protection moo ko waral lu am solo la ndax ci xale bari na kuy échec loolu parenthèse la léegi mu ngi koy wax ci kiy dawak yooyu yépp wala sax li ngeen doon wax ci débat bi ci tappale débat bu intéressant la mu ñëw di tappale boo nee rek day tappale ni ko aca da ngaa jaar ci yoon wi gën a yomb war ngaa lijjanti lu tax muy tappale ah, ndax kenn dina tànn doonu tappalekat ñun ñii di mag ku ñu sëfoon luñ àttanul dinañ tappale buñ ma yanoon léegi saakub suuf ni ma yóbbu ko ngaabu muy cinquante kilo bala maa àgg dinaa wut yeneen pexe ndax dañ ma teg lu ma àttanu kii tappale léeg-léeg ñàkk jàng ga daa ëpp ci moom jàmm njàng ma kon yow lijjantil lu tax moom muy tappale ngir dindi tappale ga waaye la tax mu la muy ta di tappale ngir mucc ci dara nga jañ ko ca loola euh, saafaroo jafe-jafe bi kon ñu xam ne rek kon xam droit mënul ñàkk te convention yooyu euh, yu am la te moo kawe gi ñoom ñoo kawe ndax après ban moo ci topp muy constitution moom lañ naan ndey charte réew mi foofa sëñ Cheikh wax na ko ci bi muy def exposé wax nañ fa ni bépp xale bu juddu dib sénégalais état moo warlu jàngal waaye état tam daf la garantir yeneen daf la garantir ay protection garantir sàmm la garantir la yu bari yoo xam ni ki ki laytoo ni dalaa bëgg a jàngal bu la bëggee xañ yee sax état mën naa dal ci kaw ndax bëgga jàngale da dul justifier la ni mu amee droit pour jàng noonu la amee droit tamit ci am environnement bu sécurisant kon pour dama ko bëgg a jàngal du justifier dama koy mettre ci condition yoo xamante ni mën naa yàq ak maggam màggam ci jëmm màggam ci xel waaye màggam ci jikko kon yooyu yépp dañ ko war a bàyyi xel nga xam ne benn tuu boo xamante ne benn du ci dem bàyyi sa moroom muy constitution mu am nag code yi nga xamante ni ci lañuy ñuy àtte ay code pénal ak yooyu yooyu yeneen loi la yu ñëw mooy loi yi nga xamante ne ay loi nationale lañ loi organique ñu tànqe ko inspiré woo ko ci constitution bi ndax constitution xam nga du ñëw ci détails yi bu nee xale bi dafa war a jàng ak xam la anam ga muy jànge beneen loi mooy ñëw tëgg ko bu dee ci senegal am nañ ab loi bu ñu wax la loi d'orientation nga xamante ni mooy wax nan la ñuy jànge ak lu tax ñuy jàng ak kan nit la ñu war a former loolu loi d'orientation moo ko tëgg bu dee ci senegal loi boobu biñ ñaar yiñ ciy jëfandikoo benn bi 91 la mooy lañuy wax la loi 91 22. boo xamante ni ñu ngi ko voté woon 1991. muy wax ni société sénégalaise nit kii la bëgg a former. nit kii la bëgg buñ noppee ci moom nii la war a mel jikko yii la war a am mën-mën yii la war a am. loi boobu bu dee 91 bi. dafa bàyyiwul woon xel ci ki muy wàllu diine ndax ca constitution ba bu leen fàtte ni ca préambule ba lañu wax ne senegal réew mu laïc la te laïcité boobu jàppewuñ ko xëy na tëdd njaaxaanaal ci wàllu diine yi waaye yoonu état ak ay institution du nekk ci diine ji euh, loolu nag définition laïcité à la française la mais am na yeneen laïcité yoo xamante ni niñ ñu koy définir mooy état tëdd njaaxaanaay ci diine yi du da ciy génne loxoom waaye day fexe maandu ci seeni diggante ci seeni ci ni muy jëflante ak moom xam nga loolu tam waneen déggin la te sax bu dee France dëgg seen déggin ci laïcité cosaanam moo ko waral du woon caagi ne état mooy génn ci diine waaye diine génn ci état ndax lu jiitu 1889 état bi ak diine bi dañ lëkkaloo woon am loo xamante ni diine moo fa féete état ñu ànd bi révolution bi amee fekk nag nit yi diine yaat amoon melokaan woo xamante ni dem nañ ba peuple bi mere leen ci ñu ànd ak état di leen bund ñu ne léegi état biñ bëgg loxol diine da ciy génn ba set ci wecc kon état génnoon ci ki diine moo génn lañ génne woon ci état mais du caagi ne dañoo jël état génne ko ci diine bu dee ci la laïcité à la française euh, kon ñu xam ni kon loi d'orientation boobu am na muy 91 22 loi d'orientation boobu tamit euh, di di di wax kan lañ war a former ak luñ ko war a xamal jëlul woon bàyyiwul woon xel daara bi ñu demee ba 2004 dama ko xaw a tënk ñu am lu ñuy wax la loi 2004 37 boobu moo indi njàngum diine moo nangu njàngum diine ci lekkool yi ci boobu lañ tàmbali tamit di xalaat nag jëm ci daara ci utal koy texte yu yu yu ko yu ko yu ko yu ko organiser waaye dañ ko dugaloon rek ci éducation non formel fa la duggoon lu jiitu loolu lu jiitu sax mën naa ne ba presque 2009 daara éducation non formelle rek la nekkoon éducation non formelle nag mooy comme man ab tëgg laa sama doom maa ngi koy jàngal nu ñuy tëggee amul xam nga loolu amul programme amul kii bu may dem jàpp ci loxo bi mën naa ko tàmbali sax ci trois ans amul benn texte bu ko bu ko régir euh, wuude bi jàngal doomam ëw tamit noonu ki di géwal di jàngal euh, doomam lu ñuy taggee ay géeram tamit euh, daana loolu c'est non formel fa la ko dugaloon kon loolu dama doon def rek benn introduction ci wax leen droit kon lan lay doon wax léegi ni amul benn texte pour le moment bu leer bu tudd loi boo xam ne daara képp moo ko tax a jóg loolu dama bëgg mu ñu ñu ñu leeral ko ci njàlbeen léegi lu tax amul sëñ daara yooyu am nañ ci part de responsabilité bu rëy ok loolu tamit dinañ ko wax dinaa ñëwaat ci historique bi mais loolu chapeau la euh, pour que rek nit ñi mu leer. te loolu wax naa ko gars yi biñ ñëwee sama biro am na ñu bëri bëgg mucc ci état ak mucc ci yoon moo tax sax ñu rejeté du ñëpp mais ñenn ñi waaye bañ a am texte bu régir daara da dul musal sëñ daara bi ndax sëñ daara bi balaa mooy doon sëñ daara ab sénégalais la bu dul woonub sénégalais citoyen du monde la te monde bi ay texte moo ko régir da ngay am texte bu spécial bu régir sa sa sa activité ba bu ca jafe-jafe amee ñu ni kii kat ab nangam la kon nañ ko àtte ci nangam bu dee loolu amul ah boo defee rek nga doon ab Mouhamadou Ngom bu def dara ñu àttale ci li ñuy àttee ñépp te boobu àtte moo gën a tar da ngeen di gis ni journaliste yi ñu ngeeg seen code de la presse magistrats yi am nañ seen juri li ñuy wax privilège de juridiction bu defee dara dañ koy àtte en tant que magistrat duñ ko àtte rek en tant que benn citoyen ordinaire nga jël avocat yi ñu am ko profession yépp ñu ngi fexe am lu leen tënk ba bu leen dara gaaree ci li ñuy liggéey bu leen di àtte ñu bàyyi xel ni liñ doon liggéey ci la leen lool dal parce que nag kii tëgg moom la gën a jege weñ gaañ ko que jegewul mbaar ma kon bu ko ci weñ gaañee buñ ko yaata am na luñ ko war a mën a jéggal moom waaye nag bu nee duma am benn texte bu ma buy wane ne man ab tëgg la ah bu kii yeet ñu xoole ko ne rek yow daal ak def nga ci weñ gi dara kon nangam moo lay dal lii dal ku ñëpp rek moo lay dal moo tax ma ma ma ma wax ni léeg-léeg Euh, man sama gis-gis la nag njuumte la woon ci niñ xaw a projet de loi boobu te nag bu dee ay sëñ daara yu am taxawaay euh, ñu ngi fi war nañoo gën a taxawaat pour loolu am parce que vide juridique moo fi nekk buñ doon waxtaan ci daara fi mu ne waxtaan wi daara ak droit day dikk rek ci waxtaan état ak droit ak ak ak daara moom lay moom lay moom lay mujj doon léegi daara mooy lan yéen xam ngeen ne daara mooy bërëbu jàngukaay boo xamante ni objectif am bi jëkk maîtriser alxuraanul karim la parce que ci bu doon ni day même daara ju ñuy jànge majaalis kese sax nga xamante ni jàngum alxuraan amu fa woon cosaanu daara moom mooy mokkal alxuraan ak jàng xam-xamu diine buñ ko doon euh, euh, définir loolu la maanaam boo amoon ganeen kuréel tey di fa jàngale laneen lu dul alxuraan ak xam-xamu diine mën naa tudd lu ne mais du dootu tudd daara te loolu même dans l'histoire feeñ na daara mooy li jëkk ci bërëbu jàngukaay bu formel ci Sénégal bu ñuy def historique bi day remonter ba onzième ñenn ñi ku mel ni Amar Samb remonter ko ba neuvième siècle ay Cadamosto ci seeni bind bi ñëwee visiter senegal fekk fi ay bërëb yu ñu décrire ni dañ fay taxaw dañ fa ay xale dañ fay daje dañ fay nekk am kuñ tuddee ab sëriñ ñu taal wër taal bi yor lu mel ni ay ñu tudde ko ay tablet mooy àlluwa yi di jàng alxuraan di ko jàngandoo di def répétition collective loolu ci seeni bind feeñ na kon daara moo jiitu lu jiitu loolu daan nañ yar di jàngale mais du woon njàng mu formel xale bi du jóg di dem ci bërëb jublu ci rekk jàngi amul woon ci daara la tàmbalee bu njëkk li amoon mooy nga juddu ñu lay jàngal ci kër gi yenn di la jox yenn jikko yi ba nga am foo àgg ci at ñu defal la ay lël ñii ci bois sacré ñenn yi ci lël yi am yeneen yu ñu la fa xamal yu ñu dul xamal ñëpp ñu tudde ko ay rite de passage noonu lañ daan former waaye nag daan nañ ci former nit ku mucc ayib ku am ay jikko ci ngor am ay jikko yoo xam ak ak man-man yu mën a dunde ci société bi mu bokkoon ba lislaam dugg ànd ak nag daara ñu commencé di ko jàng moom lañ naan ay daara fàkk taal xamante ni lii sëñ bi doon wax rek ñëw sa bërëb rek fàkk taal sa taalub jàng ñu yónnee la ay dong nga tàmbali di jàngale booba xam nga ay buur a fi nekk ak yooyu ay teg sa amul nit ñi buñ gisee dara bàyyi ko noonu rek mooy ni kon loola valable na mais terewul buur yooye sax ay jafe-jafe daan na am digganteem ak sëñ seen diggante ak sëñ daara yi benn rek laa ciy nettali mooy li ñuy tudde la guerre des marabouts bi amoon tey ñu tudd Maam euh, Maaram Mbàkke ci ñi defoon après ab médiation ba mujj euh, am ci saafara biñ demee diir nag bi état di am senegaal bi njëkk mooy état colonial mooy bi tubaab bi dugg see colonisation loolu fekk na daara am ay at ay am si ay siècle sax laay wax daara am ay siècle parce que ñoom après quinzième siècle lañ ñëw te maa ngi leen wax neuvième siècle kon bi état boobu ñëwee aussi dominé ñu muy état colonial di français yi dañ tàmbali nag am ay jafe-jafe nag ak daara ndax biñ ñëwee biñ ne cëpp rek daara dafa nekk wujj ci ñoom liñ bëggoon a def ndax dañoo ñëw ak seen bërëbu jàngukaay am nit kuñ bëgg a former koo xamante ne day méngoog liñ bëgg ci réew mi liñ bëgg ci Afrique fekk daara am nit ku muy former koo xamante ne biñ ko càmbaree wuute naag ñoom projet biñ am ndaxte kooku dina contrecarrer seen projet moo tax. biñ ñëwee dañoo fekk njàng moo xamante ni daa ànd ak bind daara moo amoon monopole bi moom rek moo ko doon def ñu indi ñoom njàng mu ànd ak bind am seeni objectif mu wuuteeg objectifu daara ndeke jekk ñaar yooyu fu mu amee day indi conflit mu indi jafe-jafe diggante daara ak état colonial kon daara rapport bi mu njëkk a am ak état rapport conflit la rapport euh, jàmmaarloo la ci jàmmaarloo boobu jàmmaarloo bu fës la jëkka doon boo xamante ni ki ngay jàmmaarloo da nga koy xam ni xamal ni maa sa kaw xam nga mën ngeen jàmmaarloo fekk nga wut ay pexe euh, ba kooku du du xam di naxanteek moom mais jàmmaarloo bu fés moo jëkk a am diggante état colonial ak daara loolu moo waral ngeen dégg ni gouverneur taaloon na daaray Pire ah 1864 ñenn ñi wax 1865 te daara jooju ñu ngi ko ubbi 1603 université 1603 la judd la ci ci ah Xaali Amar Fall Xaali Amar Fall nekkoon sët ci Déthié Foundiougu Fall. 1603 la ko bi waaye moom fan la jàngee daa jàngi woon Fuuta ndax yàlla dafa dogaloon mu gane àdduna euh, bokk ci famille boo xamante ni ñooñu euh, waroon nañ nekk buur mais booba Kajoor am na looy ëndaale doo mën a falu ndax dafa amoon tuuti jafe-jafe ci tànk doxin te xam nga ñun wolof dafa xaw day waar tamit ndax da nga tuuti dalay dar rek mu mu mu mu xaaj la yow sa bët bu xawee metti sax mun a genn wàllu nii la day mel ni sa genn wàllu gépp dem na euh, loolu waral buñ dara xawee kii ci yow moom mu laxas dem jàngi ba mu ñëwee ñu daggal ko aw tund boo demee dañ naan tund xaali muy dëkk yu bari ci sañaxoor mu samp fa daara jooju nga xamante ne daara jooju moo indi révolution bu jëkk ci Sénégal révolution boobu moo mag révolution francaise bi nga xamante ni imposé nañ ko monde bi ba jàpp ne moo indi sax modernité alors que ñun loolu ñoo leen ci jiitu mais nag Afrique moom lu bëri ay ak njàmbaaram dañ koy suul euh, ak jafe-jafeem yim am ak faiblesse moom la ñuy gën a wane te africain yi tamit ànd ci Afrique rek ngay gis moom mooy fésal ay góomam bu xeexee ba pare au lieu moo wan ak njàmbaaram waaye góomam ndax fi mu ne ku fi ñëw tubaab bu ñëw dañu lay yanu yóbbu la gore ni weñ yi lañ daan yeewee samay maam fii lañ ko daan def ak da loolu te du noonu warul woon demee noonu waaw kon loolu moo jiitu ci jàmmaarloo ci biir jàmmaarloo googu ci la en 1903 def benn loi cadre bi ñu jàmmaarloo ba ci digg bi dañ jekki-jekki di imposer ni léegi comme daara ji mënuñ ko fay parce que nit ñi dañ ko bëggoon léegi dañ leen di imposer ku yoratib dongab daara ay donga daara tamit da leen di indi ci école bi ay am bés yu ñu leen di indi ndar ñu wax ni sëñ daara yi bala ngaa ubbi di nga am autorisation mais tamit dañ lay tegal charte day am bés comme alxemes bi dongo bi day ñëw ci école bi jàng làkk bi jàngal ko français xam nga kon ay charte mu ngi commencé di tege biñ demee ba ci biir ñu xool ni jàmmaarloo bi arrangé wu leen ndax taxul nit ñi bàyyi daara ji ñëw ci école yi ñu am li ñuy wax la loi cadre de 1903 ñu ni nañ leen këpptal nañ jël daara ji dugal ko ci école bi mais biñ koy dugal it bëgguñu dugal pas-pas bi muy alxuraan bëgguñu dugal njàngum diine dañoo jël arab dugal ko en 1903 loi cadre boobu 1903 bi article 4 bi dañu l'enseignement de larab est donné dans toutes les écoles établies en pays musulman kon léegi xam nga bi mu koy def defu ko ci xol bu neex mais comme nit ñi ñu ngi koy wute ci daara ji mu yaakaar ne kon bu ko dugalee ci école bi nit ñi dinañ xëy na ñenn ñi dinañ bàyyi daara ji dem pour euh, jam ñaari picc ci école bi muy dugal ko article 9 ci même loi bi wax ni un marabout doit être attaché à l'école pour l'enseignement de l'arabe maanaam école bu nekk dañ koy attaché benn sëriñ daara pour mu jàngale mais dañ ko leeral jàngale arab mais waxuñ ko mu jàngale alxuraan waxuñ ko mu jàngale diine loolu li ñuy wax lettre de politique générale lettre de politique sectorielle ci secteur bu ne bu dee éducation daf koy am nga xamante ci lañuy ñuy définir politique éducative bu réew mi boobu moom dañ cee wax carrément daara ci la lettre de 2013 la lettre de 2013 ñu wax mais biñ ci wax dañ ci wax ci ni modernisation des daara dañuy def ay jéego vers la modernisation des daara léegi modernisation des daara baat boobu indi woon na jafe-jafe yu bëri daara moderne sëñ daara yi ne daara amul lu ñuy moderniser ñee tamit ne daara mënuñ ko bàyyi rek ni mel mu indi te pourtant daara ñoom sëñ daara yi sax bàyyiwuñ ko ni mel ndax daara ñun ñëpp xam nañ ni yéen ñii daara ñu ci ëpp ba mën naa ne daara jañ jànge melul woon niñ jaar ji na kon modernisation am na waaye baat bi comme baat bu ñu àbbi la muy baatu tubaab daara di baat ba bu jógee xëy na ci arab ba mujj wol doon wolof nga jël rek boole leen ni daara ni moderne jafe-jafe fa la tàmbalee. léegi programme ba ñëw nda looloot di étape ci mii parce que mooy le curriculum des daara moderne balaa programme bi sax mën naa jàpp ni processus bi. bi euh, biñ koy tëgg xam nga bi biñ koy tëgg sax ay sëñ daara ki waa daara lañu woo ndaxama xam état moom lu ci bëri da koy jox rek ñi ko mën ñu def président moom day ñëw rek signé mais nag bu koy def fàttaleku leen ni bi may wax ci njaalbeen accord yi nga signé moo kawee yeneen texte yi moom da lay tënk cest bu ñëwee di wax ci daara faw mu bàyyi xel ci euh, euh, kii waaw exposé de motif yi faaw bàyyi xel accord yooyu ndax li may signé nii ak li may def méngoo na ak texte yi la moo tax faw ndax foofu tam day am pression yu metti yu fii am yoo xam ni euh, état bi loolu mën na ko xoj bu ko xesee signé mënatu la bindaat lu wuuteeg moom wala bu ko defee dina dina doywaar euh, bi mu ko defee ci lañ. Euh, def curriculum daara moderne accord cadre bi nag ak daara moderne modernisation des daara bi nga xamante ni lettre de politique bu 2013 bi moo ko indi ak curriculum daara moderne yi moom lañ defoon référence pour autoriser ak naka la tuddati reconnaître daara nga xamante ni booy ñëw bëgg ñu reconnaître sa daara ci base yooyu lañ koy lañ koy defe di nga nangu modernisation di nga nangu liñ def ci accord cadre bi mais aussi euh, di nga tënku ci yenn charte yi gis na di nga tënku ci yenn charte yi bokk na ci di nga nangu ni châtiment corporel maanaam duma xale doo ko def euh, di nga nangu ni euh, par exemple doo yalwaan loo xale bi ndax yalwaan moom dafa am loi la loi de 2005 defe naa loi 2005 bi waaw 2000 loi loi bi ko tere 2005 la la loi 2005 06 du 10 mai 2005 moo tere yalwaan xale yi dinañ ci ñëwaat. yalwaan ak yalwaan loo ndax sëñ daara bi buy am jafe-jafe du doon ci yalwaan yalwaan loo lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy reproché xam nga tere tere yalwaan ak tere yalwaan am na am na am na nuance bi ci kii bu doon dañoo tere yalwaan sëñ daara bi mën ngaa bañ a dajeek moom ci mbedd mu yalwaan kon boo ko jàppee loo koy reproché kon ki ngay kiy yalwaan moom nga amal affaire waaye dañ tere yalwaan yalwaan lool dañ koy dugal ci exploitation nangam nangam te looloot boo seetloo euh, organisme internationaux yi joué nañ ci lu bari ndax état bi tànk que fi mu nekk nii ñoom waxuñ da ngay gis ni jafe-jafe yi du bëri mais yiñ am yëpp ci benn rapport ONG lay tukkee ndax boo xoolee bi ab lay Wade doon ci wax dafa dajeeg Human Rights Watch def benn rapport bu sévère jëme ko ci yalwaanum xale yi mooy rapportu 2010 ci la Ablaye Wade jóge euh, yëngalaat ci affaire yalwaan mi baneen bi mooy euh, bi in bi bi lakk gi amee Médina en 2013 xam nga ci la boobu Macky Sall jóg aussi parce que bi mu amee ONG yëpp dañ jóg jël photo yi presse bi bind ci euh, ci la Macky Sall jógaat nag boobu sax moo gënoon metti parce que dañ doon jàpp xale yi ci mbedd mi di leen yóbbu seeni kër muy am indi ay kii euh, mu doonoon lu xaw a doy ci ci ci ci kii ba sëñ daara yi dajaloo ne dinañ dajale defe naa 313 xaw ma non 6666 sëñ daara ñu def ñaan pour <laughs> dal ci kaw gaay yi defe naa jotuñu koo def. ah jot nañ def ah, ah waaw waaw kay waaw waaw mais missile yi jotuñ ko sànni dañu ah, dañ xuppe <laughs> léegi pour wane ni léeg-léeg jafe-jafe yi euh, fi mu nekk ci ci ci ci ci ci wàllu googu nga xamante ni rapport moo ko indi léegi nag curriculum daara moderne boobu lim tënk ba tey jii fi mu nekk nii bu dee nii loi la ñuy wax ak daara benn texte moo am muy accord cadre boobu wax naa ko daaram curriculum daara moderne état dafa am ay daara publique am ay daara non publique yum jox ay nit ci daara moderne waaw 64 64 daara 32 daara public ak 32 daara non public yoo xamante ne li tax waxuñu privé non public lañu wax ñu jox ko ay nit euh, mu am curriculum mooy am ay programme am ay année am na benn projet bu am nii sax bu ñuy wax PIPA DHS boo xamante ni dafa créer daara préscolaire mooy ñu doon naan xale yi bu bu dee amee amagul kii mais xale boobu daara bi trois ans moom daara jim définir trois ans lay tàmbalee ba treize ans daara moderne trois ans ba treize ans moo tax ci projet bi sax ñi muy ciblé duñ am duñ a duñ weesu treize ans projet yi ñuy am ak suñ daara yi ci ëpp xale yi ñuy jël en charge ci diggante boobu la ñuy nekk mais ñaam am trois ans daara préscolaire lañ leen waajal ba am cinq ans cinq la daara moderne di commencé lay duggee la xale bi di duggee ci daara ji war faa def huit ans loolu moo tax waral treize ans yi huit ans yi mu fay def. dafa am ñetti étape première étape deuxième étape ak troisième étape étape bu njëkk bi mooy étape bu trois ans boo xamante ne alxuraan kese lay jàng la koy rax mooy ci euh, fiq boo xamante ni du doon fiq bu théorique mais da ko ci tàggat comme jàpp jot nga ni ko jàppal wan ko ni ñuy jàppe julli jot nga ni ko jullil di ko ko jàngal ci pratique mais du doon kuur bu théorique waaw kay loolu mooy première étape bi kon ñetti at yu njëkk yi alxuraan kese lay doon bu dee ci daara moderne buñ demee ba ñetti at yi jeex xale bu bu dee mokkal na kii bu mokkalul tamit mu wéyal alxuraan ji waaye boole kook programme mu CICPC1 CICPC1 ci deux ans mais bu franco-arabe programme franco-arabe cicpc boole kook di jàng alxuraan bi pour. bu dee mokkalugul woon mu wéyal ko bu mokkaloon mu gën a bu dee day beqeeg day nangam mu continuer ci bu cinq ans yi matee mu des yeneen ñetti at ñetti at yooyu day continuer alxuraan ji ak programme franco arabe bu cd 2 CM1 cm ak di wéyal njàngum alxuraanam fu mu ci tolloon rek mu koy wéyal ba huit ans yi mat liñ ci lii objectif bi mooy huit ans yi buy mat xale bi mokkal alxuraan am CFEE ak entrée en sixième xale boobu bu paree fan lay dem léegi nag loolu mooy profil de sortie yi bu ko neexee mu dem collège continuer jàng def sixième continuer franco arabe collège formel bu ko nemee neexee mu dem enseignement professionnel bu ko neexee bu dee dafa bëgg koo xamante ni nutug diine la bëgg a doon ak kii mu daal di orienté wu ci arabo islamique continent njàngam loolu mooy daara moderne bu dee ci détail yu curriculum bi am na nuñ ko tëkkalee at mu nekk dañuy wax par exemple ni saar sàngam ba saar sàngam la war a jàng waa yor nga programme bi nga xamante ni dañ ko def ay séquençage ba étape yi jeex waaw kay léegi loolu ba pare day am évaluation day chaque année dañ koy évaluer mu kii daara moderne publique yi mu ngi fonctionner fii am nañ fi benn Yaañka am nañ benn Madina Touré ña fa nekk ay fonctionnaire lañ ay sëñ daara la yoo xamante ni dañ leen recruter état recruter leen di leen fay daara ji dafa am budget budget yiñ am école yi amuñ ko bu dee daara publique yi am seen budget de fonctionnement construction yi aussi dafa respecter ay normes normes yooyu tamit lañ bëgg ci kii am reconnaissance mën nañ la autoriser nga am mooy autorisation mooy yaa ngi exercer mais boo bëggee reconnaissance reconnaissance moo lay may nga am subvention état reconnaissance boobu boo ko buñ bu bu doon bu doon da nga ko demander bëgg ko fekk amoon nga autorisation ba pare man su ma ñëwee di enquête enquête bi day porter ci li ngay jàngale ndax curriculum buñ validé la li ngay condition yi ngeen nekkee yooyu itam dañ ko fixé texte la classe dafa am norme bi ñuy jànge dongo yi bu ñuy jàngi nii xale bu nekk war naa am un virgule cinq mètre carré su ma juumul ci ci ci kii nga xamante ne boo jëlee espace bi diviser ko par nombre de dongo yi da nga war a am mi léegi nag norme yooyu moom lañ teg pour le moment moom lañ tegandi ni daara ju nekk ci la war a fonctionner nga xamante ni boo yoree daara amul norme yooyu tamit tant que amul problème amul problème ni ko Cheikh Mbacke doon waxee léegi ñang eh, eh, mais bis bu amee jafe-jafe mais ci loolu lañ lay àtte loolu nag mook ñi yor ay école privée xam nga fii gis nga ngi koo xamante ni kër lay jël kër lay jël rek def ko école privée mu ngi doxal bu amul problème amul problème mais bis bu amee problème ah mais dañ ko yooyu yëpp day mën na mën na mën na mën na mën na dalaat ci mën na dalaat ci kaw moo tax man dama jàpp ni réew boo ci dëkkee ngeen am ab organisation nga fay def liggéey bu am solo ndax li ngay def état la waroon nga ñëw di ko ci wuutu koo xamante ni moo la waroon yanu yóbbu boo ko nee gungame war na laa gunge mais ci biir gunge gi faw ngeen daje xamante pour gunge mën a am bi ngeen ñëwee biro nee naa leen benn sëñ daara wala benn borom daara bu nekk ci ruqam pour état wax ak moom day jafe day tuuti lool ci état dañ ni l'état est tellement puissant que euh, citoyen bi day atomisé wu day tuuti lool ci kanamu état moo tax ñuy soxla di def ay regroupement association comme ni ngeen ko defee nii mais association boobu tamit pour mu am personne morale mais day am kayit bu dee def nga sa association ngeen booloo di def bis bu problème amee bu association bi def li ñuy njëkk a laaj mooy ana récépissé sa association bu nekk yooyu dañ naan l' association n'existe pas te loolu mooy dëgg bu ko defee bu ñu nee la ça n'existe pas ka def mbir ma lañ naan ko yow yaa def et euh, droit xamul association parce que kii amul benn kayit bu koy màndargaal moo tax am ay association muy benn def ay démarches ba sa association nga yaxal ko mu am kayit muy deuxième étape bi troisième étape ngeen def lël yi ba xam sur le plan juridique ban statut la daara am texte bu ñu la proposé ngeen woo ñu ko xam ngeen ànd gëstu ci lël ba xool li ciy intérêt daara ak lu ci dul intérêt am doog a def seen proposition ak def seeni seeni seeni déclaration mais mënoo nekk ci état buñ tëralee dara rek nga rejeté parce que boo ko rejeté vide ba du la ci mucca musal te man benn mag dañ fii boobu may def réunion ak école privée yi nekk Touba di wax ak ñoom bi am kilifa gu jóg ni ma sëñ Saliou moo ko waxoon ni ñun waa Touba mën naa ni ñu ci bari ci waa Daatam lii suñu jafe-jafe mooy léeg-léeg lu ñu tëral ñu ni suñu yoon nekku ci te lu ñuy séddale ñu jàpp ne ñoo ci war a jëkka am te xam nga état moom buy séddalee mais kum xam lay jox kum xam lay jox ba ci état sax mu ngi def ci daara loo xamante ni nanguwulu ko beneen secteur fi mu ne projet yi fi jot a jaar yépp am nañu déposé bénéficier ci projet bi te amuñu autorisation nga xam ne autorisation bi dañ ko ci boole. mais ñàkk ñàkk am autorisation du tere ñu ñu kii la ba ci récemment bon ceeb bi doon séddale tam bari coow ak xaalis boobu génnoon. doon doon nañ ko séddale. no non non li ñëw département Mbacké séddale nañ ko ba mu jeex tàkk. ça veut dire que ñëpp amuñ séddale ba dese naa jaar yoon ndax am na ñoo xamante ne amoon nañ daara ca ba ñuy def recensement ba te. bi mbir mi ñëw daara nekkatu fa am ñoo xamante ni jox nañ leen sax te bëgguñu woon am ñu bëggoon joxuñu leen amoon na ay jafe-jafe daal mais quand même préfecture lañ ko defoon la fa ñëwoon lépp dem na parce que pare dañ def rapport mu dem xaalis bi moom lañ séddaleegul Louga rek moo séddale parce que ñëwoon na ba ci académie yi mais. dafa àndul woon ak list ndax li liste ceeb bi amoon jafe-jafe ñu ni nañ liggéeyaat ca liste ba moom moom kenn seddaleegu ko temps yi nag sëñ daara yi amoon nañ audience ak ministre bi ba mu joxe woon ay consigne ba gars yi liggéey nañ ci ba del ba joxaat ko euh, defe naa temps bi moo xaw a xat ci ci lu bëri mais li l'essentiel xanaa wax nañ ko ci instrument yi pour tënk rek mooy waxuma ci projet de loi bi lu bëri projet de loi bi biñ koy def kenn mënul ni état daa tëju def projet de loi demewul woon noonu dafa associé ñi nga xamante ne ay association maître coranique lañu woon fi mais léegi nag association yooyu day fay bëri léeg-léeg bëree bëri ba finalement kuñ fàtte nga ne lañ def baaxul loolu dina waaw noonu lay demee léeg-léeg lu ma am na ñoo xamante ne luñ bokkul baaxul te loolu yéen xam ngeen ci dara non xam ngeen ne ah ci nit ñi waxuma ci waa daara rek dama ne xam ngeen ne ci nit ñi am na ñoo xamante ne luñ bokkul mënuñoo luñ lu ñuy nas buñ ca bokkul mu kenn mënta wax ba baaxal la ca génne loolu ci ay nit la projet de bi bi mu génnee. jëfi nit ju mat sax amul mais euh, lu ñuy jàppandi la pour dox dem di joyanti man dama jàpp ni dañ ko waroon téye di def nag ay amendement di changer ba keroog muy méngoog liñ bëgg mais dañ ci noon def ay amendement naan article sàngam ne génn man bokk naa fii ay atelier ñu ci def ci projet de loi bi mais dañoo jekki-jekki am lu xew am ñu dem ci kilifa gu mag wax ko ni ko ñun projet bi lu ca baax ak lu ca baaxul loolu lépp dañ ko waxul lépp lañ ni nañ nañ nañ nañ ko rejeté loolu moom mu ngi woon ci YouTube bi mën ma seetaan ko ni sëñ mi doxe ci noonu ci ci sortie boobu ci la état tege lépp boobu laa gëj dégg ñu wax ci projet de loi waaw léegi te loolu ña ko def ay acteurs yi daara la waa daara lañ ñoom ñoo wax rejeté ko ci la euh, mbir mi tukkee moo tax fi mu nekk nii cadre juridique bu leer bu jëm ci daara foofu laay wàccee sama kàddu mooy ni amul. bu daara ci Sénégal jafe-jafe yi mas jaar ci état wax nga ko ci bi ngay tàmbali au lieu ñu ne daara ak yoon waaye ñu ne daara ak état xëy na dañuy teg foofu sunu baaraam nga xam ne bu ëllëgatee bu lu mel nii amatee da sox fi nga dal fi nga degoon sa baaraam rek daal di continuer insha allahu taala macha allah waxtaan bi am na solo lool te am njëriñ euh, feeñal na ci biir waxtaan wi ne daara ak ak état naka jëkk dañoo mas di am jafe-jafe waaye nag bu dee ci lislaam daara ak état benn lañu woon dañoo dem ba mu yàgg maanaam ñu jël ñu jël li ñuy tuddee euh, daara seppi ko ci état comme li mu doon junj léegi mooy euh, li mu doon wax léegi euh, ci xeex ba amoon fële ca France. Hmm? révélation bu amoon française bi amoon ci kañ la teewoon sax. 1889. waaw nga xam ne église bi ak état bi dañoo àndoon ndax men dañoo àndoon di sot di sot di sot euh, population ñu mujj daal di waabale yëpp rek ma ngoo kon boo fii ci suñu Sénégal wax wax na. xeex bi nga xam ne moo amoon ci diggante daara yi ak ak état ak tubaab yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ba ñu massacré woon sëriñ daara yu bari ca yooyu jamono. waaw jërëjëf sëñ Moussa Mbaye moo jëkk laaj waaw mais loolu ni nga ko waxee noonu la amee te feeñ na ci biir bi may waxtaan sax euh, ba 2004 kenn amul woon droit jàngale diine ci biir école yi. xam nga ab addis mën nga ne arab bi wax na bu ko defee day mel ni ab aw léeb la rek daal léebu kii citation la mais amoo woon droit jàngale fa alquranul karim amoo woon droit bind fa bismillahi rahmaani rahim léegi 2004 nag biñ voté loi boobu 2004 37 ci lañ am droit jàngale diine jàngale xadis jàngale fiq ci école franco-arabe yeeg école classique yi yëpp nga xamante ne ci emplois du temps bi day am éducation religieuse waaye nag benn sew-sewan sew ci waajur wu mu neex man nga ni man sama doom bugg ko kenn jàngal loo boobu liberté lañ ci am nga xamante ne option la ab ku dul jullit bu nekkee ci biir école bi waajuram mën naa ñëw bu ñu waree jàng diine moom mu génn nga xamante ne du lu waaw mën nañ ko composer mais foofu nag moom ci jàngalekat bi ndax tamit di ubbi nañ bunt bi mais da ngay gis jàngalekat boo xamante ni moom gëdd gam ko war a jox dëgg man ba may jàngale daana am ñu ma daan bokkal mën leen yéen yéen a war a liggéeyal yàlla ci mbir mi comme occasion bi amuloon bu demee ba am waroon ngeen ci profiter juróom benn at yi xale bi nekk ci école bi comme amul occasion dem daara ngeen liggéeyal ci yàlla fexe mu xam le minimum ci diine loolu moom ci kii la dépendre waaw. waaw amul ah, parce que amul droit amul droit téye leen parce que comme optionnel la amul droit téye leen léegi ndax sëñ daara yiñ yiñ jàpp xam nga nag sëñ daara yiñ jàpp nag ay catégorie lañ waaw ah, xam nga. sëñ daara euh, même magistrat beeg man mi inspecteur ku manti doon am na lool boo ko defee mo am na sëñ daara yoo lañ def bu ñu àtteewoo woon charia sax dañuy dal seen kaw xam nga amul benn corps de métier kuy liggéey catégorie société professionnelle bu ñu ni kenn loo def rek dañ lay bàyyi noonu léegi lii lii kii ñiñ jàpp ci par exemple ku doon corriger ab xale xëy na mu xaw a ëpp ba xale bi am ay gaañu gaañu waaw kay xam nga yooyu mën nañ ko comprendre foofu bu doon dëgg dëggi texte de loi bu régir daara am na mën nañoo waxtaan ba texte ba buñ nee ab sëñ daara la mu am ay yombal yuñ ci mën a teg bu bokkul ak koo xamante ne daa fekkoon ab xale ci mbedd mi rek dóor ko mu gaañu. xam nga kii nga xamante ni dafa dóor ngir jubbanti ak ki fekk xale dóor mën na doon benn résultat kii mën naa dóor mu damm kee dóor mu damm waaye ndax même àtte la war a doon déedéet bu amul benn texte nag même àtte lay doon comprendre nga. loolu loolu moo ci kii mais yeneen yi nag yi nga xamante ni moom ku ku def yenn yoo xamante ni daanaka crime la. ay viol yi xeet yooyu. xam nga loolu déjà boo koy défendre. Euh, dama du xam foo koy sukkandiku ndax li ngay téere bi ngay jàngale sax mënoo cee sukkandiku pour défendre ko waaw foofu foofu loolu la loolu loolu foofu la nag léegi recrutement sëñ daara yi ci daara ma sëñ daara yooyu ay fonctionnaire la ñuy doon ni ñuy recruter ci fonction publique la ñuy def fonction publique concours lay recruter léegi nag contenu concours bi ndax profilu sëñ daara bi. dina ko may chance pour mu jàll bu dee dañ ci bari ay dugal làkku arab lool dugal ci ay dissertation yooyu mën naa tax yenn arabisants yi ëpp chance pour jàll que sëñ daara pur et dur bi loolu bu dee loolu la association ñoo war a waxtaan ni li ngeen di recruter du profilu sëñ daara ndax ab arabisant mën naa dem ci daara ji am jafe-jafe jàngale ñun am nañ ay arabisant bi ñu demee bi ñu euh, bëggee ñu affecté ci daara moderne dañ ñu ni carrément ñun duñ jàngale kay tey alxuraan ñi ci honnête dëgg dañ naan lay wax carrément ni ñun mënuñoo toog di jàngale alxuraan méngoowul ak sunub jàng waaw waaw waaw. Uh-huh. man gis naa ne ñu ngi ci jël waxuma la maanaam concours bi loolu ñu waroon a jaar uh-huh. moom moom la jaar ndax man dem naa ba entretien uh-huh. mais damaa gis ne gis naa ne ni ñu ko ni ñu ko tànne ni ñu ko saytoo hmm. war na nekk am ndax lenn man am na bac arab jàng naa arab maanaam sàkk bi jaaxalu ma mais bu ma ñëwee ci maanaam ci culture waaw waaw. Mhm. des na. du ci du ci mën a jàll. waaw loolu nag xam nga nag entretien moom day mën naa dellu sax entretien moom niñ ko defee mën naa bañ a dellu ci tex bi loolu ci ki nga dajeel lay dellu rek ki nga dajeel moom parce que entretien moom texte bi danaan entretien rek. ki nga dajeel am na lu mu war a xool ci entretien entretien sax warut a xool xam-xam dëgg personnalité la war a xool xam-xam bi mooy ca dissertation yaag yañ lay laaj ak yépp boo demee ba jàll ba entretien xam nga nit mën naa am xam-xam te desee nite nit mën naa am xam-xam nga xool jëmmam xam ni kii mënta doon jàngalekat mën naa doon am xam-xam bu kii mais ci ay jikkoom ci gaaw a meram am na no parce que entretien daa war a am sax psychologue nga laaj ko yenn laaj am na nu muy réagir boo ko jàngalee xale dina def dégâts yu bëri loolu entretien foofu la war a gën a jëm mais du jëm sax ci natt sa xam-xam sa xam-xam lanee na ko war a natt entretien natt sa personnalité ñu complétante par ñu laa recruter. parce que recrutement sur dossier ci jàngalekat xam ma doon nañ ko def mais da ngay recruter sur dossier kii dossier macha allah am na xam-xam yépp pour mën a jàngale mais personnalité ba la amul. ci vacation dañ ci am ay jafe-jafe yu rëy recruter nañ fi ñoo xamante ne ñu ngi ci école yi kenn mënatu leen def dara mais am nañ xam-xam mais mënuñoo jàngal kenn parce que mënuñoo am sax autorité ci seeni élèves ils sont pas respectables. certificat sax amuñu ko. non loolu loolu loolu loolu loolu loolu moom problème la mais attention dinañ ci ñë dinañ xëy na dinañ gën a yaatal yow mën nga am sama numéro boo ñëwee inspection ñu gën ci la yaatal mais concours moom concours crème ci jamono jii moom euh, concours bu sérieux la mën na am nag ay njuumte mais concours crème ci jamono jii moom waaw waaw dinañ ci gën a gën a gën a waxtaan léegi sëñ Cheikhouna Ndiaye euh, loolu question histoire la mooy euh, euh, piir li tax ñu taal ko bul fàtte ni Pire moo produire ñoom su Thierno Souleymane Baal ay intellectuel de haut niveau la doon formé ñoo xamante ni biñ demee arrangé wuñ woon buur yi mais arrangé wuñ woon tamit état état état état état kii parce que intellectuel kenn mënu ko dominer mais il fallait que ñu arrêté lo parce que boobu moo fi nekkoon université bu àgg niveau boobu nee naa la ñoom seeni uni seeni école bëgguñu woon sax former ku àgg yenn niveau yi bu gisee nag koo mu ngi former ñoo xamante ne dinañ yeewu. buñ paree dinañ yeete ah mais loolu duñ ko bàyyi mu ndox looloo tax ñu taal université bi parce que da doon yàq seen projet déedéet déedéet jaay doole dañu leen a jaay doole dañoo dañoo àndul woon ak euh, projet colonia colonie bi boobu am na sax ñu bind naan gouverneur Valière la mais loolu anachronisme lañ koy wax ci histoire parce que boobu fekk Vallière nekkul woon nekkagul woon gouverneur Faidherbe la fekkoon mu nekk gouverneur comprendre nga waaw ni ni ñuy def pour am ay droit mooy comme nii def ay association fexe association yi légal droit kenn du ko ñaan dañ koy xeex sëñ jiili ñàng ah? bu dee ci sëñ jiili c'est yi nag yéen sëñ daara yi yéen a confondre yéen ay jaawale projet yi yi ñëw seen daara du projet daara moderne daara yo boobu nga nekkoon paquet la woon projet paquet paquet dafa amoon ci école yi am ci daara yi am ci seem yi projet foo dégg ñun la projet rek dafa am durée de vie dañ naan la cinq la bu jeexee mën nañ am beneen projet te bi mu jeexee dafa jëkk a am paquet initial mu jeex ñu indiwaat paquet FA paquet FA mooy fonds additionnel moom it mu ñëw ay finance mu jeex am sañ daal yoxante xamante dañu doon continuer ak seeni moyens bopp fi mu nekk nii paquet boobu am na beneen bu ko remplacé bu ñu naan PAPS paquet demoon na ba 529 daara bii daf ko def ci dolliwaat yeneen 600 daara nga xamante ni ñi bokkoon ci paquet bi ñëpp dañ leen a jël dofis mais ñu. kiiyaat pour amaat yeneen 600 daara yu ci bokka yu ci yu ci bokkaat pour am ay financement yooyu paquet ñëwul daanaka xaw la boo xoolee paquet lijjantiwul sax sam njàngaleem ak alxuraan ak na nga koy def day ñëw rek appuyer la jox la ay fonds ni la nag mais budget état la ko joxee da day am ay ligne danaan na lii fii la jëm lii fii la jëm lii fii la jëm ak enseignement euh, français ak mathématique waaw français ak mathématique bi li ma jaaxal mooy li ni dafa yàq seen daara man am na ay sëñ daara yoo xamante ni biñ ñëwee ci deuxième phase bi bëgg a déposer di hésiter dama ne leen nañu wax diggante jullit ak jullit man dama leen di conseiller en tant que jullit bokk leen mais bis boo leen ci gisee lu yàq seen daara lenn rek ca saase bàyyi leen bu ñu leen waxee ngeen leen inspecteur ngoom moo ne ñu woon bu ñu ci gisee lu yàq suñu daara nañu bàyyi euh, mais gisuma ko ci parce que. huit heures de temps lañ leen ni woon moom lañ jàng français ak mathématique huit de temps yooyu sëñ daara bi mooy xool waxtu wu ko mu ak jour yu ko neex moo koy définir huit ba pare bi ñuy recruter amoon na ay conditions de recrutement mais fii man fexewoon naa ba sëñ daara bi faye fayu fayu moniteur bi kiy jàngale fayam duñ ko fayee inspection sëñ daara bi dama koy bàyyi ci kontam bindal ko moom mu dem dekese mooy fayal boppam sëñ kii bi kii jàngale français bi li mu ci jublu woon pour kooku kilifteefam mu exercer ko ci kooku te noonu noonu te dem non mais demewul woon noonu fépp loolu dañ ko loolu suñu initiative la pour wan la ni euh, euh, lu ci lu war a yàq daara man doon na ma jaax parce que gis nga huit heures de temps yooyu xale bi di jàng français man nag pédagogue laa inspecteur laa sociologue laa aussi de formation euh, xëy na du ma bon léegi sax sëñ daara la mais dama lay wax ni euh, gis nga xale bi jàng laneen daf koy gën a dolli xereñ ci maneen njàng mi que bu doon da ko bàyyi vide gis nga bis yim daan bër xam nga fa la ñuy dugal njàng ma gis nga buy jàng wane waneen làkk wi loolu gain cognitif bi mu koy indaaleel buy jàngaat français bi arxuraan da ko fa yóbbu ni nga gisee xale bi jàng arxuraan bu ñëwee di jàng français bi li muy ëndaale ni mu koy dimbalee ci français bi loolu vice versa la jëmmi mathématique jëmmi mathématique mathématique day exercer xel mathématique njàng la moo xamante ni ñépp a dëppoo ci ni njàng mu baax cim xel la mooy langage science kon jàngal xale mathématique loo te te mathématique tubaab yi ci arab yi lañ ko jëlee ba tey jii chiffres yi ñuy utiliser ci français dañ ko chiffre arabe lañ ko tuddee utiliser wuñ chiffre romain le zéro ci arab yi lañ ko jële kon dañuy da pour mu yàq daara xëy na kon am na yeneen yu carax ba tax mu yàq fa dara waaye du jëmmi projet bi kese moo yàq daara bi bi beneen bi mooy loi euh, jëwriñ waaw loi internationale yooyu ñu signé euh, ndax man lañ mën a def ba contourner ko pour mu ci ceeg yooyu loolu moom dina xanaa xeex fii mais loi yi sax euh, man pour man dadul temu au tey mais li ci ëpp méngoo naag lislaam méngoo naag daara xam nga protection de l'enfant bu ñu la nee protégeel xale bi jox ko benn environnement bu sûr xale bi setam nangam nangam nangam daara bu fa tilim amee ñàkk moyen la liy wax ji kay ki la ni setal ne ko kaay jàppale ma ci cet gi ki la ne xale bu bum xiif nañ ñu jàppale ci ba mu bañ a xiif bum yalwaan nañ ñu jàppale ci bañ a wal yalwaan gi parce que man pour man benn sëñ daara. mais tànnul ab dongam di di yalwaane temps ba muy yalwaane nga téye woon ko ci daara ji moo la ko gënal loola kon lu gaar la waaye du lu bokk ci daara man gis-gis boobu laa ci am léegi euh, dossier daara loolu paate moo laa jon loolu léegi dossier bi booy ubbi daara loolu sax Mourtala Fall ñëw na def ci man ak man émission sama bureau pour tasaare woon ko pour sëñ daara yi bañ cee amati jafe-jafe dossier bi bu ñu la ko liimalee nii da nga naan boo moytuwul tam mu découragé la mais man bu dee ñi nekk département Mbàkke moom am na yombal goo xamante ne def naa ko ci ak euh, waa service bi boo ñëwee di sëñ daara dama naan la demal wut sa photocopie légalisée carte d'identité wala sa kayitu juddu sa certificat de nationalité ak sa casier judiciaire muy ñett yi ci des yëpp maa la koy wutal bu ma la wutalee yeneen yëpp dama la koy jox ni la bii yóbbu ko ci diw mu signé yóbbul bii ci diw mu signé yóbbul bii ci diw mu signé nga yóbbu ñu signé la nga boole kook ñetti kayit yooyu boo indee ma toppal la dossier bi ba nga am sa autorisation defe naa loolu moom c'est simplifié waaw ah, loolu la defe naa loolu moo doonoon laaj jërëjëf. ngir yàlla li takwin wa taalimul quraan wa istiqbaalu talaamisin musarradin centre Iqra centre formation de l'éducation de accueil des enfants talibés perdus yaakaar naa inspecteur nga jéggal ma ci njuumte yiñ def ci làkk googu ñuy sant bu baax jamihiya bi kon suñ kàddu sant la kàddu cant la ndax li fi mat wax lépp inspecteur leeral na ko Serigne Cheikh Mbacke ñang leeral na ko laaj yi leeral na lépp waaye dañoo am xol bu sedd lool ak mbégte ci teewe jataay bu ni mel dafay mel na kon inspecteur dafa mel na kon daara yi ñu ngi wuyu si seenu woote kuy wuyu si sa woote nag kon war nga koo gàttandu ndax thème yiñ fi tànn ak niñ ko traité ak ñiñ tànn ñu def ko day wane na ñii kon li ñuy def xam nañ ko fi ñu jëmit xam nañ ko kon macha allah bu ñu amee inspecteur bu mel ne inspecteur Ngom ci dal gi macha allah ak laabiir gi ak daara gi man damay liir ba mu yàgg ma ne ah kon jafe-jafe yi doon am ci daara yi diggante projet de xanaa booba inspecteur Ngom moom damaa jàppoon ne booba dañ ko waroon yóbbu ca inspecteur de daara parce que moral bi nga ci man ak ni nga ko leeral nii jàpp naa ne problème yi doon am ci diggante xaanoonu asaas yi bu daara yi bu fekkoon ne yaa nga fa woon jàppoon naa ne jàpp naa ne ni nga ko leerale nii ak ubbiku gi ma gis ci yow mën naa saafara lu bari waaye nag weesoo gut kon maa ngi wax ne di jéggulu nag ci guddal gi waaw kon maa ngi jéggulu dama ne doon jottali rek de xam ne it kon jekk nañ pour markasu Iqra ànd ak yéen lëkkaloog yéen ndax fii may waxe yéen maa ngi jóge ci formation bu ñuy def boo xam ne tàmbale nañ ko la 20 la 27 lay jeex muy juróomeel bi yoon ñu koy defee fii ci kër Cheikh du Mourtala boo xam ne it bii ñu ngi waxtaan ci bi may tey rek fi ma jógee rek bi ma ñëwee laa fekk ngeen di waxtaan mooy ilmu su at-tarbiya benn matière bi lool la beneen bi ci des mooy turuxu tahfiis yoon wi ñuy jaare xale bi ngir li inspecteur doon leeral ndax gis nañu xale yi léegi ak xale yu njëkk yi bokkut kon diir bu gàtt mënees na cee jàngal xale mu mokkal dem jàng yeneen yoon wuñ koy jaarale nag nuñ ciy tàggati siñ daara bi formé ko ci ba mu man loola beneen wér-gu-yaram ak daara daara it soxla na nit wér sëñ daara bi ci poom wér njaboot gi wér loolu it ànd nañ ceeg docteur Ndeye Maguette Diop euh, ñoom it def nañ ci benn waxtaan bu am solo waaye rafetal jàngin wi ci bu tënk daal kon na ngeen xam ne ko Aqal mi ngi leen di tàllal loxo ci liggéey bu am solo bi ngeen di liggéey di leen jaajëfal jasaakumullaahu xayran wa aleykum salaam wa rahmatullah gën a yaatal waaye léegi-léegi mbir yi ni nga koy bëggee gis nga ñu mooy sama ancien président fii mu ne mi ngi may ñaan kàddu waaye damaa bañ oh, ngir temps bi quatre jot na njóobee ni xam naa ne fii mu ne xamatuñ fi ñuy taxaw beneen ba tey topp te mooy euh, añ yi daanaka mi ngi bëgg a seet bañ ko commencé di bañ ko commencé di soññee yàgg na lool te jataay bi yàgg na toogaay bi yàgg na li ci des dañ koy bàyyi bu beneenee bu beneenee ku bëgg a jël kàddu da ngay teel ñëw boo leen bu ñëpp teeloon a ñëw xataayu temps bi doo am nii doo amee nii Serigne Fall Serigne Fallu Seck mi nga xam ni moo ñu yaatalal barab bii jaar na fi léegi natuma ko nag waaye ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko ndokkeel di ko wax ne ko ñi ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi président euh, sëñ Mourtada moom tamit amoon na fi kaddu ngir kaddu euh, euh, en tant que président waxoon naa itam maanaam réalisation yi ji jàmyee bi jot a def waroon nañ ko jàll jàllale waaye yooyu yëpp fi mu ne dañ koy mujj xadaf rek la na ñëw Mouhamad Cheikh Mouhamad joxoon ñu ko diplôme ku bokk ci jamiya bi itam président nee na bul demagul ku ci bokk ak ku am yéene bokk ci président nee na bul demagul kii man la naa tëb sama bopp soxna jaare jóg kaay moom ñoom di ñëw mooy soxna jaara moo jiite jigéen ñi nekk ci jamiya bi bu dëgg la bëri guñ ci nag waaye mi ngi ciy def liggéey bu ama am solo bismillah sëriñ ja yaa ñu koy joxal kii xam naa buñ joxee ñett rek ñi ci des eh, ñu baal ñoom ñu fekk leen ci seen place rek jox leen ko waxtu rek problème waxtu jafe-jafe waxtu jafe-jafe waxtu laa am de na ngeen ma jéggal rek te yàlla tax sëriñ Mbeng inspecteur Niang ah. ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi yal na ngeen gudd fan ma ne yal na ngeen gudd fan yal na ngeen gudd fan ñoo bee nii ni ngeen ñu baal Eh, nii ñu ko defee ci at yi nag am nañu yéene incha allah at mu nekk ñu defee ko noonu. wal qalami wa ma yasturuun